Serigne Touba Serigne Mountakha Mbacké xalifa général kullu murit di yokk ñaan yàlla mu may ko fan wu gudd lool wu ànd ak wér yaram ba lépp lu mu yéenee liggéeyal Sénégal Sénégal liggéeyal ko maamam ju sell ja mu liggéey ko. Euh, di ko lawal ba ci mboolem ñi mu réew mi ñëpp ak mbooleem ñi mu bokkal di leen islaam euh, ñu am mbégte nag ñëw tey ci weeru koor wi ñu nekk ngir. bégalante ak mbokki taalibe yi fas yéene ànd ak kilifa gu mag ci lenn ci jataay yi nga xame ni baaxoo nañ koo ànd ak yéen kilifa googu di kenn ci njabatu xaadim rasuul ngeen jàkkaarloo ak moom nii di koo xamee ni ganiyun anit taarif wet goo ko làmbi rek fekk fa Cheikh Ahmad Bamba xaadim rasul moo xam muy ci wax wala ci jëf wala ci melokaan muy jëmm joo xame ni ni ma ko yàgg a waxe bu làmbi diine tëggan ñu ni moo fay teewal yoonu murit ku tëdd sañ ngaa nelaw ba yandoor ndax leeral ni yuuxu yoo dégg xamal ni mooy ñëw ak drapeau ba ndax jomam may na ko fiitam may na ko xam-xamam may na ko muy Cheikh Moustapha Abdoul Akram Mbacké Serigne Moustapha Abdoul Akram di ko xamee ni fu ñu ko waxee خل ديالو تي سيرين عبد الله كرم باك موم شيخ عافيه واي فوني كو واخي خل ييب جاب ني كوكو سامبو شيخ عبد الله باك لا واي فوني كو واخي خل ييب ديم ني كوكو موي امباسادير طالبي سيرين توبا ييب موي جيم جو خامي سي ا جيكو يو سيت سي دومو ادمه ييب يالا مو نيالي نكو مستوي دي جيفم جيفم مستوي دي واخام tabaarakallaahu muy borom taxawaay bu rafet mboolem ku fi musa nekkal sëñ tubaa xaadima rasul mu ànd ak yow ànd gu rafet yaakaar naa du jar mi ñëwaat ci digganteem ak Serigne Saalihu Mbakke Serigne Touba Serigne Sidi Muxtaar Mbakke ba ci tey nag jëmm jii fi nekkal Serigne Touba nga xam ne ab ànd mag moom mat na ñeen fukki at lu jiitu muy nekk sëñ Bamba Xaadimu Rasul mu ànd ak moom àndan mu rafet nekk ak moom nekk mu rafet tey mu ànd ak moom féete ko ci wetu defar ak lépp loo xamee ci dafay sellal yoon wi ak ñangal yoon wi kooku di sëriñ Moustapha moom sëriñ Abdoul Akram Mbacké sëriñ bi ginnaaw buñ la nuyoo siyaare la sant la gërëm la ci turu taalibe yépp ci jataay bii nga ñu nangul te mu nekkan lu war a jafe ci ñun ndax tolluwaayu jamono ak yittey jamono waaye may faral di wax ni yow bokk nga ci ni nga xamee ni du ma ni ku leen woo ci sëriñ Touba ngeen wuy si ko déedéet dama naan ku leen woo ci sëriñ Touba fekk leen ci te lii xam nga ni buntu liggéeyal siñ Bamba la ñu bàyyi la nga nuyu ak mbokk yi bala ñoo dugg ci waxtaan wi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki Touba ndax tey fi ñëw tey mbokki njaareem yépp mbokki Sénégal mbokki Afrique mbokki àdduna bépp. maa ngi leen di wax nuyoo boobu nga xam ne buñ amoon lu ko ëpp jox leen ko waaye amuñu ko muy asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa naa bala ñu dugg ci waxtaan wi ñu fàttali leen ni waxtaan wi yéen ko ànd ak seen télévision Touba TV ci teewaayu sunu Serigne Serigne Jibril Ndaw waaye seen sit internet Rafa TV ak rajo Benno FM waaye ci teewaayu itam Serigne Abdoul Ahad Mbacké di kenn ci kër gi. sëriñ bi kon dafa mel ni ñoo ngi ci weeru màgg weeru barkeel muy weeru koor ren nag mu ñëwee ci contexte bu doy waar mooy ci jamono joo xamee ni ñoo ngi wax am mbas ci àddina bi muy law ba ñu ni dugg na fii ci senegal ñu bëgg a xam rek eh, ci njaal bi yéen waxtaan wi kàddu yooyu yi jëmale ko ci taalibe yi ndokkeel leen ci koor gi waaye ñaax leen ci tolluwaayu jamono. di nuyu Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko jaarelewaat foofu. di ko sofaat ci bokki bokk yépp bokki jullit yépp mm, bokki dëkkandoo yi waaye nag rawatina taalibe yi nga xam ne yàlla dafa dogal ñu bàyyi seen lépp ànd ak Serigne Touba te am ca ñoo xam ne ñu nga woon ca sunu wet kon du nu mën a def lu sant leen ndax li mbas mi nuru nuru mbas ndax. lu mën a doon bu la ci yàlla musalee war sant yàlla du gaaf ci yow waaye lim koy nuru nuru nuru taalibe yëguñ ne dara xew na ci seen jëf ci seen pas ci seenu nangu ci seenu gën a ànd ak Serigne Touba ci ñi nga xam ne ñu ngi sama wet ñooñu kon daañ leen santaat bu baax gërëm leen dalalaat seen xarit bu baax ci euh, tawat ji nga xam ne wax nañ ne tawat la euh, ku ci jotul sa wàll dangay jàpp ne tawat la yàlla buñ ci jot suñ wàll waaye euh, ngeen ngeen yëg ne rek mbas mi walla feebar bi microbe bi nga xam ne moo ànd ak moom ci ordre lay dox yàlla rekk mooy joxe ndigal microbe ba mu mën a alak kenn wala mu dugg ci kooka bu dee su ko yëg wala mu romb ko waaye fu nit mën a ne ak fu mu mën a doon bu fekkee ne ndigal am na ca microbe ba fu mu mën a ne dana ko fa fekk mook feebar yëpp yam yàlla dogal na nag ñëw na ci dëkk bi yëkkati nañ koy dayo bu rëy rëy waaye dayo man Tuubaa ci li ma gëm mooy ni sëñ Tuubaa ñagee dëkkam bi eh, ci Matlaboul Fawzayni lu fi mën a ñëw ci àdduna day tisati yaakaar naa ne waaye lor ja du mën a bari waaw loolu nag du tee nga fagaru lim nu fekkoon ndax lii nu feebar bi fekkoon moom diine dañu cee jiitu eh, ñu jàngal na ko ban darkis ci muy di sangu ba set di sollu set di jàpp di julli loolu mooy moo mooy addinu nasafa diinu set la te fekkoon nañu ci ak cet kon cet googu la ñuy waxaat mbokki taalibe yi ñu góor góor lu ci ci setu euh, setu biir ak setu biti maanaam set goo xam ne nii ngir jaamu yàlla ak set goo xam ne yaram wi la ñaari set yooyu yëpp ada sa xab xabas ñu boole ñaari set yooyu ba noppi boole setuk laabu xol goo xam ne nii moom la sëñ bi tënkoon ci ci nun ci taalibe yi bëgg nu soppante eh, bañ a xëccoo dara bañ a soxorante kenn ku ne la nga am nga yéene ko sa bopp loolu di sëñ Mor su ma sañoon am sañ-sañu wax ci taalibe yi danaa leen wax loolu waaye man nag wax boo déggee may wax xamal ne bu may wax ñi may déglu lay waxal loolu daal laa bëggoon a wax su ma sañoon a wax nag danaa ko jàllale ba mu àgg fu mu war a àgg waaye murit dafa am fu mu war a teg boppam mooy fan mooy déglu sëñ bi waaw sëñ bi wax fala sëñ bi sëñ Tuba wax na ne wax naa ak nun euh, sifaatu saadixil muridi bi ixtisaar arbaatu nasamtuha xaw faxtiraar xam nga kon ginnaaw ñeent la wax ne way naa ko ngir bañ murit yi waru moy bëgg sëb sëriñ sét ko fi ma ba ti say xaawat su mam ci sali amri ay sorat bëgg sëb sëriñ lum la digal nga def ko euh tarku rehtar salabu ixtiyaar lo ci sànni bi lañ kaar tarkul tarkul ixtidaar bàyyi gaaral ak salabul ixtiyaar rekki tànn loolu mooy mooy mooy melow murit saadex sëñ bi wax na ca kii ba ne morit boo xam ne def na lii yaa ngi ca la nga xam ne mooy yoon wa murit bu ko defut nekkoo ca lay yoon wa kon nag ginnaaw nun ay morit lañ bëgg doon te bëggunoo doon lu dul ay morit te murit yi daam nos boo xam ne moom lañu war a àndeek sab sëriñ kon loolu laay eh, fas yéene man ànde ko ak Seex Muhammadul Muntaxa ci ci ci ci lii xew ak leneen lu xewut di ci di ci naabaat it ñi ànd ak nun ak keneen ku bëgg lu baax te bëgg ànd ak nun ci liggéey bi nga xam ne lii lii ndigal li nu yàlla joxoon nu continuer ci bi sëñ Muntaxa ñëwee ci la àndeek nun ba ci wopp ji nga xam ne yàlla dogal na eh, wopp ji dugg si na waaye jaxasewut sëriñ bi ak jaamu yàlla jaxasewut sëriñ bi ak mu tere jaamu yàlla sëñ bi moom ni mu ni mu fugloo jaamu yàlla sax damay ragal ne eh, eh, ku xamutoon yàlla di ko dégg cim réew boo ko gisee ak na muy jaamoo te te te gunu ko te jege ko ngay defee ne kii du du amul posé bu muy def bu du jaamu yàlla ak eh, muy muy julli ak jàng alxuraan ak jàng xasida yi ak di def salaatu ala nabi bu mu mën a doon wala muy sabbal yalla loolu nak bu ci ku mel nonu nekké nun nu ne ci biram limay faral di wax ci bir wax ji duñ ko sañ waye dañ sañe soñ ñi ñu andal waye nun ñepp nu nu euh xamaat ne li yëf yi ab liggey la señ bi mom day wax liggey bi rek waaw liggey bobu ko jog nak bu nu sañon talibé yi dekk Touba ak talibé yi dekk Touba te talibé mom boko ko jël nga mbir mi noo mën a mel ak koo mën a sant ak koo mën a doon bu fekkee ne doonoo taalibe doonoo dara ci mbir mi ak ku la mën a juri nag doonoo ci dara waaw ndax ak taalibe sa siif yi te ak taalibe moo nu may li naam ak taalibe nu koy defaral ak taalibe moo tax nu ànd ak sëñ Touba kon ku ka bokk ak sëñ bi dëgg-dëgg la muy puukare mooy mu fexee nekkub taalibe ba mel ni sëñ Muntaxa mi nga xam ne mooy sunu njiit di sunu lépp kon loolu daal moom laa doon soññe ci koor gi ak ci wopp ji nga xam ne am na te wopp ji nu am yaakaar bu wér ne yàlla daanu ci musal macha allah muqaddima bi am na solo lool mel na ni fi mu nekk bu ñu yemoon fii ci waxtaan wi rek eh, li jot a feeñ doy na sëkk ab yóbbal ñeel taalibe yépp eh, ñëw nga ci sa biir wax ndax yow ku la xam démb xam la tey dana xam ni sa wax yépp eh, doole ci Serigne Touba la yem ci Serigne Touba. faf yàlla dogal tey kii nga xam ni mooy Serigne Touba di Serigne Mountakha nga yàgg ak moom lool sëriñ Mountakha tam jóg rek tegu ci yoon xiirtal ci taalibe yi waaye li ñuy wax ak axlaax muy tëdd ngay jikko mel ni Serigne Mountakha dafa nekk université bu koy bu ko bu koy jàngale loolu ñëw ci jamono joo xamee ni waxkat yi bari na ñii noonu lislaam yi jóg nañu ku nekk naan référence amatul ndekete yoo am na ñu amul référence waye ñun njabotuk tuksin touba am nañu référence mat référence moy serigne muntaka serigne muntaka mom nga xamé ni eh, bu ñu waté ci xasida serigne touba yi dinañ ca gis bayit bu yaakaarlu lol moy bayit wa serigne touba di wax naan ya rabbana bil muntaqal bashiri kun li fi daareni sa tabshiri moy bayit wu wu lu lol ci jëmi serigne muntaka kon ñun taalibe tey nan nañu war a taxawee suñu diggante ak santaani santaane Cheikh Mouhamadul Mountakha mii di sëñ Tuubaa kon taxawaay bi ñu ko war a jàppe de man mi nga xam ne man ngay waxal de 1974 la ma sëñ Abdou boole ak moom ba may boole ak moom it am njàng moo taxoon ma dem mbul kayal jàng xam-xam waaye sëñ Abdou ci pas-pas ba dafa mujjoon ne Eh, njàng taxut ma yobal la fa dama bëgg ngay roy ci mun muntaxa kon man damay am lu leer nañ ne ko Moustapha mii dama am lu ma bëgg mu jot ci loo xam ne suma la booleeg moom dana ci jot am lu ma bañ mu raw ko it bu ma la booleeg moom du ko raw kon na ko jàngal àdduna akuk taalibe kon man eh, dañ ma cee nargan waaye boobee ma ko gisee ak léegi ak lan waxtaane ba mu ma gisee seere la ndax boobu sëñ Abdou Lahad demut waaye sëñ Maam Mor Paka la moo dem di xaritam ba fii ma toog di wax yow ilaa yawminaa haazaa musuma gis ci àdduna mu waroog li taxoon yàlla bind ko waaw te wóor na ma ne séenu wuloon ne mukk dana nekk jataay bi mu toogee ñaanal nañ ko gudd fan ba tàyyi de waaye man xam naa ne ba mu dalee wax ne euh, maa sut sama ay kilifa aw fan kon lu yàlla defee baax na kon moom la mu doon séenu mooy ëllëg te ëllëg jooje ba tey moom lay séenu kon nag ku ànd ak moom te yàlla dimbalewu la mën ngaa waru ci moom sax nag ndax ku bari ker sàngoogu koo xam ne nii tey li ñuy xam lépp mënu ko gën a xam waaye kersa ga daf ko lëmës ba dafay mel ne ku xamul dara ku bari xam-xam la waaye xam-xam ba taalibe ga da ko da ko da ko wodd ba du nangoo xam dara boo ñëwoon bu la neexoon nga waar ko boo ñëwoon bu la neexee nga tegu ci kawam noo ko dikkee daal lu dul lu dul wan sëñ Tuubaa gannaaw loolu moom amu ci masla lu dul wan lislaam gannaaw amu ci amu ci masla kon kooku nag dafay dafay naqare e, wax ku gisam xóotul e, ndax da dadu gis ku gumba xoloor gumba xoloor moom day jàpp ne moom moo dàq gis ci nit ñi ndax bët ya dafay naa jàkk rek fekk gisul dara kon nag loolu mooy waral koo xam ne am nga dara ci gis-gis da nga xoolaat sa bopp xoolaat ñi fi jaaroon da sëñ Tuubaa amul tànki gannaaw ni ko nit ñi waxe tànki kanam la am ku ñëw rek nga ne kii lañ doon xaar waaw kon nag ni nga ko waxe léegi ci Cheikh Abdoul Ahad nga xam ne man moo ma booleek moom loolu laa dund ak moom di ko dox di ko dox di ko dox ba bi ma ñëwee ci moom waaw ndax lenn lu ci ne bam nu boolee la boole bàgg ndax maa ngi bàyyi xel keroog bi nga xamee ne Mm, Cheikh Abdul Xaadir dem na sëñ Abdul Akram gàll ma kaala ne ma demal nga jébbalul ma waaw ndax mag gi waaw eh, ma dem ci sëñ Saaliwu waaw eh, dem di jaayante ak moom ci ndigalal sëñ Abdul Akram damaa fekk sëñ Muntaxa mu toog nii wallaahi noonu la demee ma ñëw kaala gañ ma waxoon ne naa naa yeew kaala gi sama baat jox ko comme xar mu am xar muñ yeew te ne ko jox na ko njabootu sëñ Afi gépp loola sëñ Muntaxa moo mooy sama seere sëñ Muntaxa daal di daal di jël kàddu dugg ca ba sëñ Abdul Lahat eh, sëñ sëñ Cheikh Abdul Akram demee it ba may dem moom maa ko woonu ànd mu seere sama nji waaw waaw waaw mu seere ma ma ma jëbbulu sëñ Saaliw waaw loolu mu ma ma jëbbulu sëñ Saaliw waaw alhamdulillahi rabbil alamin Eh, ku ko xam ku xam dayo ba mu ba mu ne xalifa ak sëñ Muntaxa sax boo ko xoolee da nga da a nuru gu sëñ Abdul Ahad mm-hmm. waaye boo geesoo it da lay nuru gu sëñ Saaliw waaw eh, ndax sama digg ak sëñ Muntaxa ci sëñ Abdul Ahad ah, ndax ku ne mën na caa wax de waaye xam naa ci dara waaw ndax tooguñu benn jataay tooguñu ñaari jataay tooguñu ñetti jataay tooguñu juróomi jataay ay jataay la kon kooku dafa mel ne dañ ma booleeg moom may dem bi sëñ Saaliwu demee it ñi ma njëkka xiirtal ci alaaji Muhammadul Amin ci la bokk ne ma demal bu altine ma ñëw ma dem bi sëñ Cheikh Mati lay ñëwee itam ko salika ban jógee foofee ca kër sëñ ma Mati lay këram lañ wuti lépp wan la ne man daf ma lekk rek di ma sàmm ndax wax na ma ko barki ne dañ ma laa dañ ma laa dénkoon ne ko waaw kon noonu laa àndee moom di ku ko xam xamin bu wóor woo xam ne nii eh, waxoon naa ko barki biig ci mm, bi ñuy waxtaan ci moom eh, waxi wolof la ku ko moytuwul laax lakk la waaw ndax xam naa ne eh, li li li tax laax di la lakk loo foo ko dëkkee rek wet gune moo la ca man moom waaw yu bari moo leen ëpp xam-xam moo leen gën a yaru moo leen gën a jub xalifa gi da ko cee fekk nag xalifa nag moom mëneen mbir la ak lañ lay wan loo gis mënoo ko àtte waaye li ma mën a waat mooy e, dafa nangu loon mag ña waaye lii ma lay wax 74 te ñetti weer yu ne bu demul sëñ Abdou Lahad dana ma ca yónni ba ma xam sëñ Abdou Lahad fi ko teg ak ya cay biir yoo xam ne yu xóot la bu ma ko waroon a wax it sañ-sañ du ma ko mën a wax moom sëñ Muntaxa xam na xam na loolu moom lu lu ñu denc la la ca sëñ Saaliwu itam eh, xam na xam naa lu ñuy denc la kon duñuy ñuy war ne rek kii fi mu dama ko daan wax laata muy toog jataay bi fi ñu la soxlaa fi nga dikkee ndax ginnaaw sëñ Saaliwu ni mu taxawe ndax booba yoon wi lii laaj na loolu laaj na koo xam ne nii bu doon ay taalibe képp lañuy la ñuy pukkare woo nga xam ne ku bari mbooloo ah wax dëgg yàlla mën naa sampum dëndëm nag waaw te booba téewulu mu laxasaayu laxasaayu comme ni murid yu njëkk ya daa laxasaayoo topp alaaji Mouhamadul Amin dama jëlale ñee nag jëlale naa Cheikh Abdoul Khader Cheikh Abdoul Ahad ba ci sëñ Saliou waaye ñi jàpp ne ay magam lañ dafa mel na keroo la gën a jaaju ngir nekk seenub taalibe boo xam ne nii ku ko bàyyiwul xel sax walla koo xam ne àggoo fa mu ne da ngay jàpp ne leneen la mu nekk ci loolu nekk ci loolu ba yàlla indi nag liggéey bi keroog ba may wax ak moom ca bis bu njëkk ba dama nag murid yi nañ góor góorgóorlu fay ko ndax lu mu leble la amul benn nit bu koy lebal fim mu ne loo koy lebal a ah, fay rek waaw fay googee nag man ci laa fas yéene nekk man amay jaayante moom dama fas yéene man mun duma toog ci àdduna te uma kilifa ndax nit ku ku ku toog ay taalibe ñëw di jaayante ak mu leer na gënoo leen juddu gënoo leen a rafet bind gënoo leen a jub loolu sëñ Tuubaa rekk a tax kon ginaaw moo tax nag kii nga xam ne nag wóor na la ne mi ngi ci te mu leer la ne mënoo koo man ca dara nga ñëw ànd ak moom fas yéene roy nag rek lu baax moom eh, nit ki mën na laa gën waaye bu mu la ko gën a bëgg ñàkk gi nga xam ne ma ñàkk na bëgguma kenn gën maa bëgg lu baax moo waral ma ne ci moom moo waral ma ànd ak moom waaye ma ci ndigal nag waaw te man dama koy faral di wax moor ne ko sëñ jibi di wax ne ko eh, man bu fekkoon ne yàlla dogal na jamono ji o la ah dana aduna dana xaw a jafe lool ndax lu ma nit mën a tàllal ba loola mu defee ne gudd na ba sun ma jàpp ne lu gàtta nga ko waaw loolu ku àgg foofu nag kilifa gu mat kilifa rek moo mën a taxaw sa kanam nga rus ko nañ am yar ak tegin ak kersa ta ta ta topp ko te bañ ko jiitu kenn du jiitu sa kilifa te ndax daa wóorut waaw man ñemewuma ko waaye ku ko ñeme maa ngi lay wax ne wóorut ñu bàyyi ko ak boppam te góorgóorluwaat ci moom te xoolaat yoon wi te xoolaat dëkk bi xoolaat ni ko boroom sase sose wax na ak ko barki dama la bu faw sëy ni eh, ba ma waxee ba defee ne daan naa sax daf maa romb waaw pas-pasam daf maa romb bi may wax man wa maskani salim min al fujaari wam nun alal ahli bi maayin jaari ma ne ko gis nga ko xool robinet yeeg yooyu waaye moom sëñ bi moom fa muy waxe sax weesu na foofu moom la la muy séenu mooy mooy mooy laneen laneen nag lu nee ngi ci géeje nga ci ak dexe ngi ci waaye moom fa mu teg sëñ Tuubaa boo daaneelee moom rombal na ko te sëñ bi lu mu waxoon am na ah boo xoolee dëkk bi julli gi ñuy julli te sëñ bi teg ko ci aw yoon ak yooyu nga xam ne fukki nit ak ñaar wala ñay defar jàkka ja wala laneen loolu lépp wala tusbitan fii jamaatan tuqim asalawaatil xamsa daban yaakim joojee sëñ bi waxoon xam ne loolu du laal suuf sëñ bi lu mu ñaan nangu na loola eh, bakkanam la ci teg kon nit ñi ginnaaw nun yow àggoo fi mu àgg ci jaamu yàlla wirdu wirdu wirdu wi muy màqo maxoosam képp am na ñoo xam ne ñu bari daañ ko def naam mais mën naa am na mu koy sellale doo ko def la muy def ci listixfaar àggoo ca la muy julli ci yant bi àggoo fa la muy jàng alxuraan àggoo fa waaye xasida moom xam naa ne la mu cay def àggoo fa wallahi ku am njiit lu mel noonu la nga war a def mooy téye saw làmmiñ te bàyyi coow yi bàyyi internet yi bàyyi rajo yi bàyyi yu yépp ci wàllu liy doxal yoon bi liy doxal yoon bi moom mi ngi ci loxol sëñ Muntaxa waaw ku bëgg a jub fii ci diirub lim fii ne te yàlla na fi yàgg ndax yaakaar yaakaari murid yi damay toog ba yàgg ma ne ko ah, sëñ murid yi bëgg nañ la de waaw murid yi bëgg nañ la ndax murid yi amuñ ci moom sago kon nag murid yi noonu ku ci du am murid it na bàyyi murid yi ñu bëgg sëñ Muntaxa waaw murid nag Euh, du du ku santut mbàkke ak ku sant mbàkke ku santut mbàkke bu fekkee ne li murit bi santut mbàkke mm, euh, bëgg moom bëgg bëgg ko moom kooka kuy xale sonn la borom aj ju dut faju la waaw euh, aj ju faju nag noo mën a sant baax na tey defe naa gars yi seen aajo faju na kon bu nu bëggee sunu aajo faju nan yamaat ci sëñ Touba di ci tàmbali sunu sunu liggéey digg ba doon sëñ Touba mujj gi nekk sëñ Touba rawatina sëñ Touba moo xam ne mel na sëñ moo am linkaar sax amut waaye euh, xel dafay wëndeelu waaye koo xam ne lu sa xel wëndeelu wëndeelu nga xam ne mu ngi sa kanam kooku day mooy sañ Muntaxa maa ngi ciy jox ñëpp randiwu ku doon ku doon jéem a dox jiitu ko walla nga bëgg a làng ak moom dellul ca gannaaw wa illaa boo dellul ca gannaaw moom da daañ la ji ñaxaat ba yow doo seen pënd ba sax te moom du tee sëñ Muntaxa àgg fa mu jëm loolu daal laa bëggoon a wax ci. loolu nga wax de moom yaakaar naa sëñ ji bi ndaw liñ naan xulaasatul xawlu tënkal nañu wax ji yëpp sëñ bi xam naa fi ñuy jeexale ndax li nga wax sëñ Mountakha moom ñu amuñu lu ñu commentaire amuñu lenn lenn luñ ciy commentaire ndax dañ dul xam fi ñu dañ dul xam fi ñu fi ñuy dooree waaye bu fekkee bëgg nañ cee sànni kàddu rek dafa am bayit boo xamee ni ci Cheikh Ibrahima Diop Machar yi da koo waxan sëñ Touba. xam bu fay kan ñime nañu commenter sa wax ji dañuy abou bayit woowu Cheikh Ibrahima Diop Massar rek jox ko seigne Muntaxa muy bayit wa Cheikh Ibrahima Diop Massar waxan seigne touba ni inal fadaila wal mazaya wal ula sarat li hata cheikhi milkan mufrada Cheikh Ibrahima Diop Massar dafa wax ni ay ngeenel akuk tap akuk mbax ak jikko ju rafet fu mu nekkan dañ ko fa denkané waye bi seigne touba ñewé jël nako def ci jibam ni may borom lolé da fay melni kon sañ nañu ko abbu Cheikh Ibrahima Diop almasara yi bis ni ki tey eh, jox ko Cheikh Mouhamad eh, Muntaqa dugge ko ci waxtaan wi nga xamee ne si moom nga doon def ndax loolu rek moo nekk ci moom nag waaw haatihil aqdaam bi tilka loolu rek moo ci nekk mel na ni sëriñ bi li ëpp ci sa njaboot ay baykat lañu dëgg la am na ñuy tukki eh, ñoo ngi leen di ñaanal xat-xati jamono yàlla teggi leen ko waaye ndi ci ëpp fi mu ne ay baykat lañu sëriñ Muntaqa defal na déclaration joxe ndigal ñu ruuji ren nag jamonoy ruuj ji dafa ñëw ci contexte bu doy waar jamonoy koor jamonoy mbas jamonoy xat-xat ñu baree bari ci ñi war na bay ñoo ngi tëju ci ay dëkk mënatuñoo dem te ñu baree bari séentu nañu ni nawet bi ren incha allah rafet nañu njort ni dina teel a ñëw dan kàddu ngay yëkkati yow xam naa sax doo ko jëmale ci baykat yi dama naan jëmale ko sa bopp ndax kenn gën laa doon baykat. <laughs> bayit bi nga wax ne. manes na ko abu jox ko señ muntaxa waye ragal na do gis buñ ko àbboo nit luñu lu lew la kenn du ko jël ci mom ginaaw lol nak maangi delu ci wat di wax ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu muhammad rasulullah di seere ni señ sëñ moy sama sëriñ waaw gisuma lu mom bu ton moom dana xaw a nit ne sama kanam loolu maa ngi koy seeral yàlla di seeral yàlla it ne kii nga xam ne moo fi ne tey jii jiite murit yi man mustapha doy na ma te doyloo naa ko waaw sëriñ bu la doy nag ku dofut day moytu kam doy man doy na ma te doyloo naa ko ginnaaw loolu nag man baykat laa moom sax am na lu ma ci wax duma ci dugg waaw xam na ne baykat la li muy doon doon baykat bàyyee nanu waar wu rëy daf ma koy wax may tudd ba noppi tudd sëñ Cheikh Saliou ne bëgg gi la man dama ko bëgg ah man amu bareen bureau mor bu dut mbay mi ah te te li nga xam ne moom laa waroon a farloo ci sama digg ak yàlla la ca des xëy na lottu naa ci te samay kilifa matale nañ ko ma ne ca di nam nabi li ci des nag mooy mbay mi maa ngi ci feeŋ ma ne de am na ci ñu jàll ruuj waaw noonu sax am na ci ñoo xam ne ni wax dëgg yàlla eh, man nga ne ba loolu jotee lañ ruuj ndax dañoo dañoo desusee sunuy tool labure ko ba bu tawante it nu mën a dem ji loolu yàlla dogal na ci matuwaay yi nga xam ne yàlla yankiwal na ko doomu aadama def na ruuj bi kon ruujoon nañ daanaka ba nawet biy jeex ci lañ suuloon ñax mu tooy mi ngir mu nëpp nga xam ne engrais bio la kon nag noo ngi santaat yàlla ni nga ko waxee rek di nuyu bokk yi ci bitim réew yépp te nuyu woon naa leen waaw murit yépp yi nga xam ne yàlla dafa dogal nu nekk bitim réew te nga xam ne ngi ci xat-xat yi nga xam ne ngi fi ñi ngi leen tëj ci ay kër guddeeg bëccëg duñu génn waaye ba tey jii may ñëw am na ci koo xam ne Mandam ba mu yonne abdulaat mi la ko yonne waaw nit ko xamne ne dafa dafa dafa nga da yor sa keur yorale keuram moy mouride ñu ken kenn mënta dem balen waaw wala bok man duma dem balen ma len di gess nako ko sëñ wax suñ kiiwul ma wagn ko dajje ak ñom ak nam ko waxe ba ag ci fat fat ak xaliwun mbaam ak nopp ya murid yoyu no ngi len di baye xel bu baakha baakha baax di len wan itam na seen xel dal tawat jii daal ku fas yéene jàpp ne da ci mucc maa ngi jàpp ne da ci mucc waaye nag na nga nanga na nga wéyee niñ la ko digale rek niñ la ko digale nag du du du dañ dañoo jekki-jekki ay tubaab digal na ko wala leneen diine nu ko njëkk digal nan sax foofu bu ko defee nag ñu jéem a góorgóor dem liggéeyi waaw jéem a dem ruuji waaw ku ci nekkoon te mënoo ruuj te dëkk ba nga nekk say njaboot ne fa nañ la ruujal te fas yéene lijjantiw jiw suñ la ko joxee nga fas yéene ji buñ la ko joxul nga fas yéene wut loo jiyee te xam ne yàlla mën naa am nawet bii ah yaakaar naa ne yàlla du nu bind rayeenu noonu ci coobareem te yàlla am lépp di ngëneel ak yërmande bu ñu bu ñu ruujee te góorgóorlu te te ji dégg naa ñu ne jamono ji naqari na waaye xam nga sëñ Mor sëñ Touba danoo dàqal jamono ji naqari hmm. dang koy wax rek bu fekke ngor rek nga dese waxna ko barki dem ci sama khutba juma biñ noppé biñ jullé ba noppé waxna né ne kenn ku ci né am nga lu la yàlla defal loo xam ne nga ci dund ren ba déwén kon nañ gëm yalla te baña nek di koy xëccu ay ciép ak yuñ lay may ndax ku ci yor ben bis du la yor ay bis ku la ci yor ay bis du la yor weer ku la ci mën yor weer du la yorum at ku la ci mën yorum at du na mën yor girum dund subhanahu wa taala rek a mën a yor nit noonu nan delloowaat yàlla lépp te delloowaat ko sun bopp ah ginnaaw nag mun no ñàkk am kilifa nu tënkuwaat samay wax man gudd gàtt delluwaat ci kilifteef gi nosuwaat ci moom moo xam xëy na la nga xam ne moom moo nu ko war a wax wala mu digal nu ko wala mu dig nu ko waaye foofu daal laa di sant nag euh, Euh, euh, yéen ñu fi teew ñëpp euh, sëñ Jibril Ndaw maa ngi koy sant rajo Touba ti ti télévision Touba TV ak rajo bi yëpp noo ngi leen di sant ci taxawaay yu rafet yi nga xam ne def nañ ko bërki démb rek te loolu dëgg la al yàlla fitna buy nelaw yàlla rëbb na ku ko ne pëkk-pëkk waaw ah, alfitnatu naayima waaye nag yàlla eh, rëbb na ka ka ko man ay xisoo ko ko yee yàlla yàlla rëbb na kooku kon nag lu baax itam bu ne tekk yàlla bégal na eh, ka ko yëkkati waaw ngeen def sëñ Muntaxa eh, mot yëpp bëgg nañ yàlla na leen ci yàlla fay. waxoon ne. rajo yii am na nu muy demee rek ñu rajo ñu boole ñu yemale kook rajo ba nekk ginne wala Mali waaye tey lii rajo boo xam ne nii sëñ boo ko wooyee bu rajo bi mënoon a jóg danaa la mbàkke wala bu rajo bi jón mënoon a jóg ne ne kama financé sa talib sëñ Touba la loolu kon loolu loolu li ngeen ci jublu mooy kàddu googee sëñ Abdou Lahad waxoon yalla far ko gis nga fofu khalif khalif seigne touba ngo fam fa rek fa la yalla sotale rajo kero al ba mu waxee ci julli goge ci la leen indilee television ak radio wa ku ko ci beug rek am ko wa ñi ko ci ñi ko ci ñeuk am dañ ko ñeuk beug rek way yef yaang ci yoon bi loolu nak kon dama lay wax loolu bu baakha a baax di len di sante bu baax a baax eh, murid yëpp di sante wa dekk bi yëpp di sante jand ak sant soppe yi eh, di ñaan yàlla itam nawet bi yàlla def ci eh, barke mu teel te yàlla def ci barke rek ba mën a àgg eh, di ndax waxtu ne sunu sëriñ ba danoo jàngaloon mm, koom mm, soobaat nu ci ba képp koo xam ne ni doomu daara nga woon lëggante yow mooy nga génnaat dëkk yi dellu ca tool ya bay ndax nit bu fekkee mënta am bureau fenn bu dut ca tool ya bu bàyyee bureau booba la ca des boo tuut tappale rek lay mën a doone te tappale da ngay fekk dàq tappale jiitu la fa bu ko defee bu ngeen ko xëccoo àdduna tukki kon sëñ Saliou jàngal nañ loolu xoolal sañ Seex sëñ Saliou ah xool ko nu ko nit di yabe mënta nekk ma nga ca tool ya ma ngay liggéey ah man fi ne bu ñuy wax ba agsi ci moom damay wax ne ah bu ñu nee sëñ mu ma ne ah, sama jëwriñ a ngoo waaw kooku nag kon kooku itam eh, foofu laa ne man sëñ Mor ku ma sut rek ma ne la njool maa ko ku ma rawit ma daw topp ca gannaaw mais ku ma rawut bëgg maa jiitu nag ah loolu nag beneen mbir lay daal di doon nag moom boo ma sututi nu may yoxamti ko ba ba ba ba ba nu def ba man a maase ak yow ñun ñëpp nan nangu dogalu yàlla lu yàlla dogal na ko ñëpp nangu te nangu ko samay wax ak sama lépp maa ngi koy delloowaat ci nangu naa dogalu yàlla ne sëñ Touba sëñ Muntaxa moom la fi yàlla teg nangu naa dogalu yàlla ne nangul naa ko euh, li li nga xam ne moom lañ ko yónni yàlla na ko matal ci sagoom euh, ak wéram ak ni nu ko yaakaare mu man noo jàngal ba nu mën a tari ci wetam wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa yaakaar naa kàddu yu mel nii itam euh, mat na sëkk tey ndogu ñeel mboolem jullit yépp jërëjëf Serigne Moustapha Abdoul Akram ni ma ko waxee woon ci njaal benn jotaay bi rek bokk nañ ci nga xamee ni eh, eh, l'islam da leen di sagoo waaye yoonu murit daf leen di sagoo bokk nga si ñi nga xamee ci itam seetu ab seetu lañu bu ñuy xoole yoonu murit di seetu bu ñuy xoole l'islam alhamdulilah bi nga xamee ni si mat nga ko sëkk yaakaar naa kàddu yi nga fi génn tey ak lii nga fi wane tey ci lépp nga jëmmal ci Serigne Touba Serigne Mountakha Mbacké wane ni Serigne Mount euh, Serigne Moustapha ma ngi ci biir Serigne Mountakha daraam génnul Serigne Mountakha loolu rek la ñuy séentu muy taxawaayu bépp taalibe digganteem ak sëriñam kon nag ñoo ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm di sant mbooleem déglukat ak seetaankat yi nga xamante ñoo ñu doon seetaan ni ñu ko waxee itam di jooyalaat kàddu yi ak ngërëm jëmale ko ci mbooleem personnelu Touba TV Serigne Mbacke Mbodj ak Serigne Jibril Ndaw mi ñu àndal waaye Rafa TV Serigne Mourtada Fall ak mbooleem koo xamante ni dox nga ba waxtaan wi say bët tege si wala mu tàbbi say nopp ñoo ngi lay sant di la gërëm di sant Serigne Abdoul Ahad mii ñu bokk lañ jotaay bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala